fas yéene ci ànd ak El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ak Léopold Tamba dañu koy tàmbale ak Dakar mi xëy xëy euh, taw bu euh, metti euh, mu mel ni kon lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ci ay milimètres lañu ñu daan di xayma ci ndox ne moo fi wàcc dax tax na Dakar ko tund yu ko wër daanaka inondation yi bari fi lool sax jamono ji corniche ouest moom benn nit moo fa faatu lu may loolu itam plan Orsec daan koy déclenché fii ci Dakar tund yu ko wër ngir rek gën a àndik jàppandal ci nit ñi. nga xam ne ngi dund ak ndox mi jamono ji Safiatou Ndiaye ginnaaw taw lu bëree bëri bi nga xamante ne rek nemmeeku nañ ko euh, ci aljuma ji ak lu toll rekk si téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn millimètre fii ci Dakar plan national d'organisation des secours mujj nañ ko déclenché ndigalu njiitu réew mi Macky Sall mu di boo xamante ne rek déclenché nañ ko ngir rek mën a wàllu askan wi ci mbënn bi nga xamante ne rek taw yu méttee métti yi fi wàcc indi na ko ci localité yu bëree bëri ci réew mi yooyu le taw jur na ay loraange yu bëri ci askan wi am ñoo xamante ne ñàkk nañ ci euh, seenub alal seenub matériel am na si sax koo xamante ne jot na see ñàkk bakkanam ci corniche ouest bi suñu sukkandikoo ci communiqué bu ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum biir réew mi ngir rek mën a saafara bile situation mobiliser nañu service su état yépp ngir rek ñu mën a secourir wala sax assister askan wi nga xamante ne rek instant yi ay sinistré lañ njiitu réew mi jot naa itam yeesalaat li nga xamante ne moo di solidarité wu ci nit ñi nga xamante ne rek ndox bi dafa am lu mu leen yàqal tey rek jaale ki nga xamante ne moo si ñàkk ba xenam laaj Mamadou Mansour Diop euh, taw yi métti na naam tey ñaar fukk wala téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn caay ay milimètre moo fi wàcc mu mel ni askan wi noppeeguñu ngir ak euh, tàqalikoog lu jëm ci mbënn bi bu ndox mi taawee fi nit ñi dëkk nga xam ne amul plan d'assainissement bu baax xel mun na ko muñ mais ndox mi taa fi am ay grands travaux nga xam ne waajal ñu fa sax euh, jumtukaay yu mën a évacuer ndox mi ci anam gu rapide. Mhm. dafay laaj ñu sampaat laaj ci gën anam la ñu defee investissement ci yooyu lay travaux parce que fu mel ni corniche fu mel ni tunnel. Mhm. mënoo ko waajal ndox di fa taw lu toll ci cent vingt six millimètres rek. muy inondé ba ay nit di fa am ay jafe-jafe dafay wane ni kon faaw ñu xoolaat travaux yooyu parce que am na fu yenn liggéey li ñu fay dugal ci ay milliards te mënuñu koo defar assainissement bu baax xel mënu koo nangu. Mm-hmm. question yi mooy xaalis bi ñuy annonce moo cay dem wala déet. Mm-hmm. Euh, te nguur gi na wax askan wi réalité. Mm-hmm. gis nga plan Orsec du mooy indi solution chaque année ak plan Orsec. Mm-hmm. ku fi nekk ministre de am nga fi plan Orsec chaque nawet ñu am plan Orsec mais plan Orsec ban solition la indi gum mm-hmm. lan la ñuy secourir nit ñi école lañ lay yóbbu léegi école ubbiwaat buñ la yóbboo école fàttale fa. nga nekk fu ci situation bu doy waar ñu ngi fàttaliku temps Abdoulaye Wade mujj gi ni ñu nekkee woon ci foire nga xam demoon na ba mujj sax am ñu ay nit yu jaay seen bopp. doonoon ay complications yoo xam ne ci dundinu askan wi mais war nañu éviter di egg ci situation yooyu plan Orsec. Mm-hmm. ñi ndox mi nangu seen dëkkuwaay parcelle fan la ñu jëm. ñi ci yàqule kenn xamul nu mu toll ñooñu nan la ku ñu duñu am fenn fu ñu koy joytoo kenn du leen jox benn benn dédommagement. Mm-hmm. alors yooyu nag booy waajal plan di def logement. ñu def ay dëkkuwaay da koy utal plan d' assainissement nguur gi li mu wax Sénégalais yi moo des ci plan d' assainissement ci li mu def na ko ci ci xaalis. Mm-hmm. mais juróom téeméeri milliards lu ko jege. mais mu mënu mënu mënu koo mënu koo def ci benn dëkk. Mm. ci benn dëkk laa la wax de Dakar la. Mm. ci benn dëkk te mënoo am solution ci assainissement nañ ñu wax leneen. Mm-hmm. mi ngi noonu Léopold Tamba sa njàngat ci euh, wàllu inondation yi tey 126 millimètres euh, bëri na lool ci Dakar ci ñu xam Dakar ak inondation yi alors plan ORSEC bi ñu déclenché ndax mun na am ak jeexital ci euh, ndox mi nu mu fi. non plan ORSEC yaakaaruma mu mën am benn defar goo xam ni ne daanaka ñëpp dinañ ci kontaan parce que soo seetloo alaaji mm-hmm. Dakar. daanaka dafa bëri ay tabax tey jii su ñu waree def plan d'assainissement bu yàgg lañ ko waroon a def waaw mais li tey jii xam nga nit ñi tabax nañu ba nga xam ne ni déjà léegi tey jii sax suñu buggee def plan d'assainissement bu Dakar saa veut dire que même ay immeuble sax dinañ leen waddal ça veut dire que même ay entreprise yoo xam ne dinañ leen tëbloo parce que nit ñi dañoo ñëw concentré biir dakaar léegi nag soo waree def plan d'assainissement day métti lool day laaj loo xam ne ni xaalis bu takkoo takku wala ñenn ñi sax ñu jël leen toxal leen ci ay yeneen kii exemple mun nañu tudd kaawu Grand Yoff mm-hmm. mën nañ leen wutal foo xam ne ne foo xam ne ne fu mucc ayib ñu yóbbu leen fa tabaxal leen fa ay kër yoo xam ne ne dinañ fa mën a nekk en attendant ñu mun a assainir Grand ñu ñu koy doxalee noonu mais actuellement nii fu ñu toll nii ak xaalis ku bëri googu ñu dégg mm-hmm. te gisuñu ci benn impact bu tuuti mm-hmm. boo xam ne ne dina seddal xol nit ñi ñu daan ah lii de xaalis bi dugal nañ ko fii waaye am nañu au moins saay bu tawee dinañu am au moins loo xam ne ne dinañ jàpp ne que du am inondation situation mais lii ci am nii dafa jéggi dayoo il faudrait que état bi mun a jël li nga xam moo di responsabilité am xaalis bi nga xam ne ne investir nañ ko ci biir ñu jéem ko xoolaat ndax dafa jaar yoon su amee la ca des ñu jël ko teg ko di wutiwaat leneen loo xam ne pour defal li nga xam mooy plan d'assainissement bu Dakar mais parce que c'est très vilain que ngay ñëw ci capital muy taw nga gis ndox bi di envahir yi nga xam ne ay kër di envahir ay oto di yàq oto yi jàmbur loolu véritablement du suñu ndam doon lu doy waar Léopold Tamba dañuy dellu waxati ci wàllu politique ak élection législative yi ñu génn euh, ba léegi ak grande coalition wàllu euh, Sénégal mi daal di am mbégte lool ci résultat yu mu amee ci yile élection waaye nag ànd nañu ak précision bu am solo wax nañu ne ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay député lu ñu am ci assemblée nationale euh, lu mooy ñaar fukk ak ñeent yi ñu daal di annoncé responsable coalition yooyu dañoo xam ne ne ñett ci ay siège yi nga xamante ne ni moom moo dolleeku ci seen ñaar fukk ak ñeent yooyu ci euh, list Yewwi waaye ca ñoom la lanu far wàllu Sénégal amal nag jonog way taskatu xibaar yi ni ki tey ci suba ngir andili ay leeral ci wàllu woowe tey sàkku ci opposition bi ñu euh, boole seeni doole euh, ngir mën a faire face ñu teewlu ci Abdoul Aziz Sow Dabakh Babacar maa ñu fa teewlan juróom benn député yu yeewi askan wi ñett ya ci wàllu lañu bokk ñetti ñooñu le dañu teewaloon ab yeewi ci seenub département gannaaw gi ñu gàññe ko ci xayma kon wàllu war a am ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay député yeewi am juróom fukk ñett par exemple boo jëlee Kébémer benn député bi yeewi la benn député bi wàllu la boo jëlee Mbàkke ñaari député yi yee wàllu la ñett yi la boo ko toppee donc député yëpp ci Sénégal moo lay jox 19 euh, députés dans les départements pour wàllu plus 8 au liste proportionnelle bi mu nekk 27 plus 53 ci yeewi mooy def 80 coalition bile di sàkku ci waa serviteur boo ko gis-gis ak aar Sénégal ñu ñëw ànd ak bi bile doon benn. li des ci opposition bi mooy ñu gën a booloo jàppoo di woo opposition bi yëpp seen unité nañ ko reconstituer nañ ñu rejoindre su ko defee suñu majorité mu nekk majorité bu infaillible bu. ci loole itam ñu ngi sàkku ci député Benno yi ñu ñëw fekk ci leen ci seen combat bile. mi noonu Haj Mansour wàllug euh, xibaar bi ñu joxe ñoom waa wàllu wax nañu ne ñetti député ñu investi woon ci yeew yi ca ñoom lañu far kon jamono ji ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñu am ci député est-ce que intercoalition bi euh, ëllëg gëm Haj Mansour gëm nga ko. <laughs> mais man suur gu mu xëyee damay gis lu may jox dëgg ak raison. Mm-hmm. ca la ma waxoon nag ni sii la woon bi nga ko annoncé yaa doon def journal. Mm-hmm. ma ni la coalition alliance la tuddoon alliance bi sincèreul. Mm-hmm. tey Lamine Thiam li mu def nii. mënoon na ko waxtaanee ak Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Déthié Fall ci suuf. ci seen biir. mais woote point de presse ci seen siège bopp ñoom waa PDS pour wax waa Yewwi ni leen seen cinquante 57 députés yi ngeen am kaati ñoo ko moom. xaw ma trois yi ñun ñoo ko moom da ngeen leen investir woon ci seen liste pour ñu nekk ay député mais su député la ñu jox lañu suñu ay député léegi ñun am nañu mm-hmm. nangam yow cinquante trois nga dese am nañu ñun vingt sept mm-hmm. mais loolu la tudd mm-hmm. loolu ay wax mu ngi commencé génn ba noppi meuble ay waxam ni mu ngi woo opposition pour ñu nekk benn gis nga alliance bi sincèreul hmm. parce que lii ñu def point de presse defee ko ci seen siège petu def ko mënoon nañu cee waxtaan ñoom kilifa yi comme nañu waxtaane woon ceeg njaal benn ci alliance ba te lii ak njaal benn la descendre tuuti ci kanam hmm. lii njaal benn la yu commencé génne ay wor dëggantaan lan moo tax laajuñu woon seeni ay maire yu bokk ci PDS te jàll ci listu coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. maire Bargny parti démocratique sénégalais la bokk. Mhm. maire ba fa gañe nii. Mhm. parti démocratique sénégalais la bokk la moo tax waa PDS néewuñu delloo leen ñu suñu maire. wala la moo tax waa PDS ni bëgguñu ko jël leen. <laughs> dañuy caaxaan cest à alliance moo mënul nekk. bu yóbboo na ku ne jël sa ay motuwaay. te séentu leneen lu mën a xewaat ci kanam. parce que intercoalition moo moo moo amul lu muy tekki juridiquement. Mhm. dañu mënoon a ànd ci benn coalition. wala nu ñu ko tuddee alliance mais mu nekk benn liste. mais wax naa la juróom-ñetti liste yi ci fongeli mi moo nekk Dakar élection législative juillet ci Sénégal juróom-ñetti liste la woon wallu liste boppam la yeewi liste liste boppam la te li may wax noonu li koy gën a firndeel mooy waa PDS nañ doxale tey ñu ngi PDS wax naa taxaw ci élection yii <laughs> nga xam ne ñi ñàkkoon sax fendeeguñu muy fayeeku waa yeewi quatre députés <laughs> kenn xaw ko woon quand même léewoo quand yaa ngi commencé génn alors Léopold Tamba naka nga jàngatee démarche bu waa wallu ni ñu ko defee organiser conférence sàkku ñetti député ñu gagné ci liste Yewwi ndax xam euh, li lii xeeñ neex na. Euh, comme ni ko ji waxee lu ñu waroon a sóoraale la. Mhm. c'est-à-dire que dañoo nekk entre ñoom. Mhm. ñu am benn adversaire ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk benn adversaire mooy maanaam Macky léegi ñu coaliser mais seen coaliser boobu ngay wax yow amul ci sincérité. Mm-hmm. sincérité bi mooy tey jii y a un jeu d'alliance et de mésalliance damay dugg bokk ak yow waaye si la situation me le permet man ci sama jëmi bopp sama parti lay xool ak sama intérêt parti lay xool ma rocceeku mm-hmm. dem defi leneen ça veut dire ne que damay damay deeku mm-hmm. ànd naa ak yow ci kaw rek ñu daaneel benn mbër bi nga xam ne ne moo taxaw suñu kanam gannaaw mbër boobu daanu na léegi man damay jël la ma moomoon ko ci nekk léegi sa intérêt bopp mm-hmm. mais intérêt bi xam nga lan la mooy présidentiel bi mm-hmm. intérêt bi mooy présidentiel bi mm-hmm. parce que ku ci nekk yaa ngi xalaat ne que yow Abdoulaye mi ngi xalaat ne que doomam Karim war naa mën a nekk président Sonko mi ngi xalaat ne que moom war naa mën a teg ndëndëm doon président ak ñeneen ak ñeneen voilà looloo tax ne tey jii mënuñu doon benn say ñuy xàccandoo di dóorandoo tamit ku ci nekk da nga jël sa intérêt bopp nga ngëpp ko sa loxo nga naan euh, ba ba ba nga xam ne ne temps bi jot na pour rocceeku donc loolu la ñu def véritablement mais en réalité c'est que ñëpp prévoir oon nañ ne bésoo bés coalition bi dina voler en éclat mi ngi noonu euh, ci misaal ay kuy la ñu bokk benn mbalk Léopold Tamba yeneen réaction bokk na ci bu coalition bunt bi ñoom nag euh, am nañu mbetteel lool ci résultat yi ñu amee ndax am nañu amuñu benn siège ci Euh, foofee ci assemblée nationale Fatoumata Silla di responsable cadre euh, bi ñu dénk wàllu communication euh, ci boobu lekk coalition ba ñu jokkoog moom xaw na ñaalu nag yeneen ci ay tentative déstabilisation bi ñu doon def boobu lekk coalition ba ci sax ci ñenn seen ay biir membre dañ ci dañ koy teelu ci ay leeral mais quand même remercier ñëpp ne jox programme di féliciter tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo nar a dem assemblée nationale grand perdant pour lan grand perdant non du ñu ay grand perdant def nañ li ñu mën sabotage yi amoon na nit yi di génn di yàq suñu der pour di ñu décrédibiliser li olof naan seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel loolu moo am waaye dafa ñu gën a dëgëral di ñu gën a dooleel euh, ñuy doole di sant yàlla lu ñu doon gënal moo ñu am député ay député sax laa wax waaye nag li yàlla dogal rek dañu koy nangoo te li nga xam ni loolu la ñu yàgg defande défendre ñuy di ci di ci taxaw dëgg la ñetti coalition yooyu noonu su mu nekk ni Sénégal seen gët yëpp a ngi si ñoom waaye ñun coalition bunt bi bokk si opposition rek que ñi ngi seen ginnaaw te li nga xam ne moo taxoon ñu di ko défendre ba sénégalais yi fal leen euh, ñu continuer ci loolu noonu mi ngi noonu ginnaaw résultat provisoire yu ñu publié ni ki démb commission nationale bu recensement des votes majorité présidentielle bi moom euh, leer na nañ amul majorité absolue waaye nag situation bi ni mel obligé wu ko benn yoon ci mu nommé par force ab premier ministre jugee ci opposition ba loolee nag professeur Adama Sadio moo ko xamle di enseignant chercheur moom euh, wax na ne njiitu moom président de la république daanaka amul benn obligation constitutionnelle bi koy pousse ci mu nommé kon euh, risque comme ñi ko ñenn ñi di waxee ci opposition bi ñu teelu